mbokku internet 5 TV nuyu nañ leen euh, di rafetlu saa su ne seen ànd ak seen dégloog suñu 5 TV bi euh, tey nag dañoo amoon rek doxantu euh, ca mbaaw nag ci cimetière bi nga xamante ne foofee lañ denc ñi nga xam ne rek ñoo ñàkkoon seeni i bakkan ginnaaw bi nga xamante rek lii di bato joolaal daan na suux ca atum 2002 bile bërëb nag ku fi ñëw rek di nga fi gis mag di fi gis ndaw waaye tamit di si fas ay kilifa yoo xam ne rek dañ fi ñëw ngir ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi tëdd que soit mu nekk musulman daal di ñëw at bu jot rek ngir euh, daal di ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi tëdd yàlla daal di leen euh, yërëm euh, suuf oyof seeni kaw ba pare yóbbu leen arjana batalo Joola nag mu ngi suux si guddi alxamis jàpp aljuma yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre 2002 bi leen nag drame mu ngi xewee diggante Gambie ak fii ci Sénégal bato boobe sax ci xayma ñu ngi jàpp ne moo doon def transfert bi diggante dakaar ak lii di Gambie lii di Ziguinchor koor mu nekk nag loo xamante ne saa yuñ koy fàttali ko rek askanu Sénégal rawatina sax àdduna bi euh, dañ ci am tiis am ci naqarlu ginnaaw bi nga xamante ne lu toll ko 1863 nit nag ñoo si ñàkk seen bakkan euh, ñoo xamante ne nag ak rescapé yi toll si 63 maanaam juróom-benn fukk ak ñoom rek ñoo jot a sauvé wucceen bu ñu sukkandikoo ci bilan bi nga xam ne moom lañ daal di génne bato bi nag lu mu daan yëpp si nit nag ci luñ ko xaymaa rek toll na si junne nit rek la doon war a yeb ah, ba tax na nag bi accident bi amé rek ginnaw saytu yi nga xamanté rek def nañ ko dañu japp né rek dañu ah, dafa def ah, surcharge manam rek nombre bu mu def nak du nombre bi nga xamanté né bato bi artal nako ci bile 10 eh, nak ginnaw rek bi nga xamanté né mbir mi amna état bu Sénégal nak dal na jég jël dogal rek dal di jël lu toll ko juróom benn eh, téeméeru xale yoo rek séni wajuri wala sax sen ñi leen téye woon ci bato bi nak jël leen en charge ngir topato leen sen walum jàng waaye affaire bi nag ñaari pàcc la ndax am na yenn victime yoo xamante ne amuñu benn yoon ci ndimbal bi nga xam ne état bu Sénégal def na ko ma leen di fàttaliwaat ndekk ñi nga xamante ni ñooy famille victime yi maanaam ñi nga xam ne euh, seeni doom seeni nijaay seen i jabar sax daal na faatu ci bile euh, accident nag ñu ngi réclamer chaque jour état bu Sénégal rek ñu daal di def li nga xamante ne rek moo ñu génnee bato bi ngir seen xel yi a génn ci bile euh, catastrophe loolee tax sax ñi dëkkee ca Ziguinchor dañoo ñaan état bu Sénégal ñu daal di tabax benn batiment boo xamante rek dañ koy jagleel ñi nga xam ne rek ñoo faatu ci bile bato la ñi nga xamante ne tamit ñoom famille yooyu ba tey jii ñoom ñu ngi laajaat état bu Sénégal mu jël leen en charge maanaam nag ñi nga xamante ne dañ ci jëlee wàllum euh, traumatisme ndax bari na ñoo xamante ne ba mbir mi amee ba tey jii nangootuñu dugg gaal nangootuñu jël li xamante ne nag mooy sax lépp lu jëmale ci géej ginnaaw rek li nga xamante ne ñàkk na seeni waajur ñàkk nañ seeni jëkkër wala sax seeni doom ba tax nag ñu bari si yoom ñu ngi dund si wàllum trouble mental maanaam ñoo xam ne dañoo am ay trouble méttitu bopp ba tax nag ñooñee euh, famille yooyu di ñaan Sénégal rek ñu yóbbu leen ci hôpital yi leen en charge ngir rek li nga xamante ne euh, moom leen di moom moo di sonal mu daal di euh, jóge si seen euh, kanam yooyu beneen xibaar nag nekkaat nag ginnaaw bi nga xamante ne drame bi am nañ ñi ñu bëri ci représente ci victime yi nga xamante ne nag seen i doom seen i seen i mbokk daan nañu dese ci bato bi nag ñaan nañ état bu Sénégal wala rawatina ñi nga xam ne ñoo yor wàllum yoon rek mu daal di jël seen responsabilité rek daal di wax génne affaire bi fan la nekkee waaye nag. bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne mooy justice bu Sénégal ñoom dañoo jàpp ne rek euh, responsabilité bato bi li tax mu suuf rekk loolu yëpp mu ngi ci ndodd commandant bi nga xam ne moo doon dawal bato bi te moom sax dafa laboon ci géej bi ba daal di faatu ci atum 2003 sax lañ ko daal di denc yooye famille ba tey rek ñuy wax nee na ñoom lu ñu bëgg rek mooy justice sénégalaise bi ci mu ni dara rek dañ daal di gëstu justice bu nekkee ca France nag ginnaaw bi nga xamante ne euh, fukk ak juróom-ñetti français tamit bokkoon na te ñi nga xam ne ñoo faatu ci bile euh, bato Joola ca août atum 2003 nag ñu jotaat beneen information judiciaire boo xamante ne dañ ko ubbi euh, ca France rek ngir rek ñu jàpp ne ki def li ni mel mooy homicide volontaire maanaam euh, bato bi li ko suuxal nag ki ko doon dawal moom moo ko jël euh, risqué boobee ñu waxaat nag ca. ca bato bi ba tey ci li nga xam ne moom la doon li nga xam ne ay ñaata nit la yeboon bés boobee yeboon lu tolloo ko 1928 nit la yeboon te bato bi ci gàttal capacité lu mu mën a yóbbu rek mu ngi tolloo si 536 euh, passagers la mun a yem ñu gis lépp euh, gis lépp xool lépp te xam ne li ni mel naka surcharge moo ko def waaye dafa mel ne ba tey jii euh, sénégalais yi naka bàyyiwuñ ci xel ndax saa yu ñu gëstoo rek gis bato yi wala sax oto yi nga xamante ni daw si charge boobee mu ngi law ci wàllum transport ba tey jii ferry bi nag nekkul woon lu ñu xayma rek ak nga xam ne ñoo def ay jàngat jàpp nañ ne ferry bi euh, ba muy dem nag nekkul woon en bon en bon état pour mu mun a yóbbu bile euh, bile passager yi nga xamante ne dañ doon dem fële ca Ziguinchor ñu wax nag ca mardi atum 2016 nag cour d'appel euh, bu Paris nag daan conclu rek di xamle ne que justice française nag dafa rendi prévenu di xamle ne instance bi ci atum 2018 bébé jool ñu wax nag batalo loola ku ko tudd war nga waxaat ñi nga xamante nag génn nañ àdduna waaye tamit ñi nga xam ne ñoo fi des nag mu nekk tiis boo xam ne moo gën a métti moo gën a rëy ci àdduna bi ci wàllum géej nag ginnaaw bi nga xamante ne euh, Titanic moom moo ko amoon ci atum 1912 donte sax bato boobee moo uppoon bu Sénégal waaye nag bu ñu xaymaa ci ñi nga xam ne ñoo woon ci Titanic boobu moo gën a tuuti euh, li nga xamante ne mooy bato Joola mu nekk loo xamante ne saa yuñ koy fàttaliku rek ay rongoñ dina euh, tuuru te kenn du ko tey waaye tamit saa yuñ koy fàttali fàttaliku rek dañuy fàttaliku ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen yaay ñàkk seen pàppa wala sax ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen soxna ñàkk ñi nga xam ne ñoo leen doon dimbale waaye nag lu ñuy def rek mooy di delloo ci yàlla te xam ne rek xëy na lu mënoon a am la ba tax nag ñu ñi di ñaanal ñi nga xam ne ñoo si faatu yàlla xare leen arjana te seen kaw ñi nga xam ne nag dañoo ñàkk seen dañoo ñàkk seen i famille seen i doom seen i jërbaat yàlla may leen xolu muñ ñi nga xam ne nag jot nañ cee mucc yàlla na leen yàlla jàppale di ñaan nag lii di mel yàlla na bu mu fi amaat fii ci àdduna bi ndax ba mu amee ba tey ji Sénégal wala rawatina àdduna bi war nañ ci def ab jàngal ñu moytuwaat ci li nga xamante ne rek mooy surcharge ginnaaw bi nga xam ne bateau Joola bi am na tey ji ñaar fukki fukki at ak juróom-ñett ginnaaw bi nga xamante ne bateau bi suux na diggante Ziguinchor ak côte gambienne ñi ñaanal ñi nga xam ne dem nañ yàlla xare leen aljana jërë ngeen jëf